xëy naa la. yaa ci jàmm. waaw ñu ngi doon sant yàlla. ñu gis yi ngeen waaj journée bu mag muy le 12. waaw comme ni ñu ko waxee le 12 incha allah promoteurs yëpp dañu dajaloo ci turu association des promoteurs de lutte avec frappe du Sénégal te di bis mag tuddee ko suñu ministre suñu xarit Matar Ba donc muy bis bu rëy ñu bi 5 millions euh, fii ci Bamar Diop. ñu fas yéene ci nag bis boobu euh, teg Iba Mar Diop làmb yëpp fas yéene jàmm arène nationale loolu daal euh, association promoteur yi fas yéene donc euh, di ñaan yàlla rek yóbbu ñu ci jàmm ak salaam mu am ci jàmm. jàmm bii nii lii mooy seen première édition yéen promoteur ngeen booloo tëgg lu simple wala. ñu suñu édition bari na ndax de promoteur bu tëgg rek ñëpp mobilisé wu tey maa ni nii toog si maa ngi daal di toogal fi promoteur yëpp te jag si moo tëgg donc tëgg rek ñun lépp suñu ay édition la parce dañu ànd bokk nday bokk baay te loolu amul bu njëkk ci promoteur bu njëkk jàppante yi tibbante tànk yi liggéeyante wala ñaanante xam nga loolu dafa jeex léegi. la vie a vachement évolué donc il faut que ñun itam ñu xoolee à cette nouvelle mode de vie donc ànd bokk ndey bokk baay di yëkkatindoo di dóorandoo di tegandoo di defandoo lépp daal. kañ ngay waaj sa premier face to face diggante Siteu ak Papa Sow. bu soobee yàlla fii ak ay fan yu néew danañu envoyé message mu tas comme quoi que ni bërëb bii ak fii la ñuy ak Siteu ak Papa Sow lancer campagne bi dañ doon xaar rek décembre bi jàll. donc di commencé liggéey. après boobu yaa ngi waaj beneen combat bu mag bu dul boobu. waaw mais fokk ma pare ci bii dajale bi ci boppam xaalis bu tëdd nelaw la rek nga jox mbër mi jox ki jox ki jox kële pour man loolu du développement non nañu song benn yàlla dimbali ñu ñu pare ci ñu pare dugg ci leneen seen affaire yi dox daal. kon mën nañoo jàpp ne combat bi du yàgg. Siteu Papa non fii ak ay fan yu néew la. non. deux mois wala trois mois. yow kañ toogal déglu rek booy man maa la gën a doon journaliste danga maa xamut rek. daay boo doxee laajte dinañ la wax samay capacité fii ak ay fan yu néew daal. damay bàyyi ba dimanche ma ñëw teewee Kambane fekk la foofu laajtee la foofu. mais fa laa jugee. am naa loolu ma lay gis chaque foofu laa jugee nii moo tax damaa dallu rek daal di ñëw fii donc euh, kon yow xam nga ma. xam naa ne sportif nga chaque dimanche dama ñëw seetaan si la waaye doo gis. nañ ñaan yàlla rek defal ñu jàmm fépp fan yu néew dinañ leen wax si te Papa saw fii la ñu dóor mu daal. kontaan nañ ci. dégg nañu merci. Idaal nuyu naa. waaw Wassare maa ngi leen di yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ñu gisee démb nga teg journée bu neex. mu réussir mbooloo mu ñëw ñu bëre bëre bu neex. agogo ak ceeli. sant yàlla julli ci yonent bi rek di sant sama ñaari waajur di ñaan si Abdou di wax na kontaan nañ ci amateur yëpp daal wax gars yi woote ñu ñëw rek loolu dafa neex kontaan nañ daal démb trop waaw. ñu gis ne nga tëgg boobu mooy sa ñaata deuxième journée. woon wala def nga tëgg nga yeneen combat yeneen. waaw bëgg nañ yeneen ñaari daal ñu ngi dox bu ñu waxtaanee ñooñu ba déggoo rek lu yàggul dara ñu ngi production rek génne yeneen combat daal incha allah. naka làmb ji am na xaalis wala. waaw sant yàlla rek lépp boo ci nekk rek maa ngi raamal ñu ngi topp suñu ginnaaw mag yi mel ne président Pape Fall Assane Ndiaye Fallou Ndiaye mi nga xam ne daa jëm loxoos maa ngi ko ñaanal suñu borom kàttanal ko daal may ko jàmm ba moom ci ndam lu koy njort daal ba pare nag di laaj appel amateur yi ñëpp nañ ñëw la douze dañuy sargal Matar ba fii 5 millions yi dañoo bëgg amateur yi ñëpp wuyu si daal képp kuy bëgg làmb daal ñu ngi la woo mooy yoon promoteur bu ñu tëggee ñëpp dañoo woo ñëw fekk si la rawatina ñu tuddee ko Matar Ba ministre des sports. waaw ñun moom dañoo am référence muy Pape Abdou Fall muy suñu président référence la kon bu ñu jiitee te itam di bay waaram ñun rek di wax ne daal amateur yi képp ku bëgg a lamb ñu lay wala dus di ñaanal Fallou Ndiaye la wax suñu borom defal ko sutura daal ci lamb lamb ji nii jaajëf kon naan naa ci daal yow gannaaw Ousmane nuyu la wasaare lamb waaw wasaare leen ko rek bu mun a tasar buñ bàyyi daal tasar loo gisee wasaare lamb euh, un plus la pour lamb dafa ñëw pour lamb nekk un plus parce que lamb dañu war a am ay support yu bari am nañ am nañu aussi ay site am nañ ay télévision en ligne mais na gën a yokku ndax lu gën a yokku rek day wane ne lamb day développé moo tax Wassare Lamb ñu ngi leen di remercier di leen encourager. noo gisee lamb ji fi mu toll ñu gis lamb ji tijji na bu yàgg mais boo xoolee ñaari combat yu moo taxaw est ji daan fekk mu toll fii. lamb ji su ma euh, mënee wax dëgg lamb ji wàcc na lamb ji am na problème. am na ñu ko nangul nag mais nag lu ne lu ne fàng kenn du ko jeex lamb bu ñu mosaan dem ba dugg mois de janvier coow la naan kur te de koo coow ndax lan support yi daan euh, dimbali promoteur yi ñu tëgg lamb ñëwatuñu. mooy comme ñan mooy les sponsors yi deuxièmement mëri seen bopp mëri bokk na ci ñi lay lamb parce que bu fekkee ne yow wóor na ne lii. promoteur yëkkatee xaalisam ba jox ko mbër mu ne dafa tuuti te ci làmb xamuloo mbër a am ay combat ndax Pa Abdou Fall mu ne tëgg na benn journée ma ne ko ngeen tëggaat mu ne ma di jox say sa xaalis ay mbër la euh, a wax ñoom dañuy yeewul mbër yi man ma jël cachet 30 millions bëri ñaari yoon. wala ñetti yoon du 90 millions jege naa 100 millions waaye nag taxaw na si 100 rek lay taxaw déedéet jëlal 30 daan. bu mën a am yu mag. 50 yu mag dama ne moom promoteur mënatu koo fay ku ko fay ci suuf nga jëm promoteur bu la ne mën na koo fay bu ko fayee bu paree bu la ma ja jeexee bu la waxee dëgg perte la. ay boo ko ji fekk sax boo ko ji fekk te promoteur yi ñi bëgg ñu am bor parce bu ñu amee lamb dee. looy conseiller mbëri. nañ wàññi cachet yi dem nañ ba ci plafond bi ku ne ba mbëkk plafond bi nag da ngay delluwaat ci suuf plafond nañu nañ dellu ci suuf rek. naa Olof Ndiaye neen boo tëbee daal ci xal dese na la beneen. beneen tëbin tamit tëbin nag moo leen dese mëri xoolaat leen seen bopp xoolaat leen seen bopp xoolaat leen seen bopp. kontaan naa ci. maa la gën a kontaan jërëjëf. Vincent da kontaan. ala xal soof quoi. da ngeen bëgg a da ngeen da ngeen bëgg a rey bàyyi. balaa ma balaa maa génn gone rey ma rey la bu ko defee xal la tëb da nga leen tëb ala xal ah. suñ tool yi mbëri ci xal lañ taxaw di ku nekk ñu bëgg koom. waaw c'est vrai xam nga rek boo nekkoon ñoom ñoom ñoo indi seen bopp problème bi seetlu di ma la wax mbër yi mbër mi ki muy bëgg kooku du ko bëgg mbër moom ko muy bëgg kooku du ko bëgg mooy problème lan mooy problème boobu. mais mooy dante ay kii maa ko raw ci làmb parce que da ngay xalaat bu la daanee day am lu muy wàññi te làmb du ak maas dabante la làmb du ak maas dabante bis bu nekk daan kóolam mag bis ko daan kóolam mag daan la. moment bii ñu toll amaata yëpp ñu doon yaakamti diw ak diw kañ la seen ak diw kañ la seen dab bi làmb ci dégg léegi ñaari combat yi mag moo fi taxaw. waaw loolu moo lay wan kon làmb am na problème la am mais actuellement lamb dafa am problème mbër yi daal ñoo mën a décanter situation bi parce que amateurs yi ñoo sonn ci benn trio ou bien benn quartet Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène euh, Gris Bordeaux nit ñi ñoo dafa ñoo sonn ci lool dañu bëgg a gis leneen leneen li lan la mbër yi nga xam ne ñoo fëgg buntu pour des grands ne leen ubbi Ama Baldé Modou Lo combat la Boy Niang Balla Gaye combat la Reug Reug bu la neexee jox ko ku la neex. Malick Niang Malick Niang xam nga combat yi bari nañu. Tapha Tine. Lac de Guiers 2. yooyu ay combat la. mais il faut xale yi fëgg il faut ñu bil leen te nag wax dëgg yàlla benn takkusaan ñu fay la quatre-vingts millions mën ngaa liggéey ba retraité bi te doo am quatre-vingts millions. sa sa li ngi gis liggéey deux ans ba retraité doo mën a am million mat wala deux millions mat. ñu leen di fay quatre-vingts millions ñu am mais. te ñi la koy tere ñi la a jël amu ci ku lay may cent mille francs te dund mbër dafa métti mbër bu la ne li nekk ci ginnaawam rek dafa yaatu surtout mbër yu mag yi seen responsabilité dafa nekk ne li am noonu sa responsabilité yu toll de telle sorte nañu xool année blanche baaxul ci mbër. te am na mbër yoo xam bu ñu daan def année blanche lamb day gën a suux am na mbër yu bëri ñii ñi ngi États-Unis ñii ñi ngi Italie ñii ñi France yi te ñàkk pexe moo tax ñu dem parce que amatuñu combat ñoo soo obligé ñu wuti dara donc la lamb il faut ñu réorganiser waat ko famille lamb yëpp toog waxtaan CNG promoteur mbër ménager communicateur traditionnel journaliste famille lamb ñu tëju defar suñu lamb parce que mënuñu am 8 jours mel amee fi ñu ko amee ñëpp bëgg doon ko bu ñu fa yóbbu. fi ma la wax ni ne Iba Mar waa waa kii handball bu ñu soxla woon tey kenn du fi tëgg dañ ñu abal pour pour confirmer li nga wax Demba Diop xalaat doo ñu bëreeti fa lépp station xale doo ñu bëreeti fa Iba Mar dañ koy tëj léegi ils ñu dem arène nationale. mooy li ñu mooy li ñu wax parce que ñoo ko doon ñaan ba ci Macky Sall yi soo ko am bu ñu ko mayee muy bouche bu toll ne nañ leen fa dem fa nañ ko valoriser man sëñ Modou Niang dama koy dama koy defal mention spéciale moom ni poosam toll noonu lay tëggee arène nationale ak Iba Mar feneen la yemale nee na foo tëgg nit ñi fekk la fa loolu mooy la loolu mooy dundal lamb en tout cas mën nañu ko gën a améliorer rek xam ne seen wu daal lu daal na gën a rafet ndax lamb la rek kontaan naa ci merci fils mais mais boo amee Kandil